jërë ngeen jëf ndox mu bari mi ne gàññi ca Touba ci la l'observateur xëy di xuus Touba tout haut maanaam dëkk ba léppum ndox la nii la ko journal bi bindee ci xëtamu njëkk ci biir mu ñuy wax ne ci jamono ji nga xam ne ay fan yu néew moo des suñu digg ak màggalu Touba gi ca Touba goge bari na fa ay kër ki quartier yu inondé ba fees dell yéenekaay bi nañu donte waa ONAS di office national assainissement ak waa def nañu fa liggéey bu mag boole seen doole ngir saafara inondation yi ca dëkk ba terewul ndox maa nga ne fa jasar ne fa xus muy ca ndaamaatu di ca jànnatul maxwa ca quartier Nasrullah yoonu daaru xudóos gaaraasu mu fu ci nekk Abdoulaye Bamba Sall bu l'Observateur dem na fa daje fa ak askan wa inondé taataan seenub coon ak seenub jaaxle ba tegal ñi ko ci xët mu njëkk journal bi am na kenn ci ñoom ku ko xamal ne fi ñu nekk nii fu ñu teg seeni ndab ba mën a togg sax amuñu ko am ku ko tegalit ne yi ñu jëndoon ngir di ko dunde ak yi ñu waroon a togg ci màggal gi daanaka lépp la ndox mi nangu direct news ne ñoo ngi jëm ci màggal goo xam ne xuus di màggal def ci régler coowal inondation yi ca Touba 750 yi nguurug Sénégal ne yëkkati ko teg ci taabal ji ngir régler coowal inondation yi ci réew mi journal bi nee nañu jurul lu bari premier ministre Amadou Ba ak matuwaay yi mu doon wax ne jël nañu ko ci nawetub ren bi turbine mi ngi laaj fan la mesure am yooyee mujj Vox Populi ak lii quotidien xëy àndandoo di ñu xamal seen xët yu njëkk ne ministre intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome nee na terewul am na ay rëq-rëq di manquement yu ñu nemmee ko ba duut ca baaraam Serigne Ousmane Mbacké coordonnateur comité d'organisation bu 18 safar bi journal L'Info nee li ko métti nee na mooy retard yi am ci travaux yi ñu doon def ngir régler problème yu inondation yi ci Touba li mu bëgg xam moom sëriñ bi mooy lan moo tax ñu yeex songu liggéey bi Serigne Bassirou Mbacké Abdou porte-parole xalifa général des Mourides journal L'Info mi ngi ñuy wax ne xamal na jamonoy màggal ba tax na lu ngeen ci doon def rek ñu ngi leen di ñaan ngeen yokk ko Cheikh Mohamed Fadal Mbacke mooy ki matal Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mooy ki yokk waaye ki fondement di Cheikh Modou Moustapha moom la surnal bés bi le jour xëy jagleel xëtamu njëkk ci bésub tey bi Cheikh Modou Moustapha Mbacke mi njëkk a doon xalifab Serigne Touba Cheikh Mat Bamba Xaadim Rasul yéenekaay bi mi ngi ñuy jukkil yenn ci liggéey bu rëy bi mu liggéeyal yoonu murit ci weneen wàllit doon jëm ci wàññi njëgulu yaas bi yëf ya ci échec total ci la mujj ndax tey la wàllu gën a ay Mor Gassama dib économiste di ñu wax ci journal bi ne mesures yi état bu Sénégal jëloon na ko jëm ci wàññi njëgulu yaas bi dogal yi mu di mesures yi amuñu njariñ ci askan wi réeroo am na ci waa kër Ousmane Sonko yi journal Le Quotidien moo ko bind li ñu dégg keroog docteur Diallo Diop wax ko mu di budul Ousmane Sonko di keneen waaye Pastef dinañu amub candidat ci di El Malick Ndiaye ak Ayib Daffé ànduñu ci ñoom li ko moomee le quotidien mi ngi ñuy xamal ci xët mu njëkk ne Serigne Abib Sy Dabakh mi ngi koy ñaan mu dakkal grève de faim bi muy def ñu def demi tour dellu ci l'observateur ca quartier Pikine ga ca Ndar bari na fa ay famille yu nekk ci jaaxle gu rëy jamono ji li ko waral yéenekaay bi nee nañu moo di seen doom yu bari dañoo jëloon gaal doon dem bitim réew ba ñu demee ak léegi def na weeru yàlla te ba léegi dégguñu ci ñoom dara dara jarul li ci suur suwa ubbil yéenekaay bi histoire Salif Ba la ñuy nettali Salif Ba ab commerçant bu mag la woon ca marché asalem jóge woon senegal ne dafay jaare Nicaragua ngir dugg Amérique ca la demee Mauritanie jóge fa jàll Maroc jóge Maroc dem Espagne laata muy wàcc ca Bogota ga ca Colombie ngir dugg Nicaragua keroog dimanche ji weesu suur soi nee nañu ca lay soog a dugg Amérique waaye ba mu nee cëpp ci aéroport John Fitzgerald Kennedy bu New York fa la faatoo FM bokkoon na ci ne ay xibaar tolluwaay la ca Gabon euh, ginnaaw élection ya fa woon ci njeextalu ay bés bi ginnaaw résultat ya njëkk wadd ne euh, Ali Bongo faluwaat nag téeméer yu jël juróom mbenn fukki ak ñeent ay soldaar taxaw ne cirib ne du fa am niral lépp faf ne élection yi daanakay caaxaan la jamono yi tëj nañ frontière ya foofee la Gabon toll xibaar yi fii ci Sénégal bokk na ca euh, xeex bi ak mbëkk mi tukki mi ci anam yi dëppwul ak yoon association chef de village yi fas yéene ñoom it bay seen waar ay comité di kuréel la ñuy taxawal alerte ak yëglu euh, rawatina ci village yi soso géej gi di fanuy déparé ngir kon xeex ak tukkim gune yooyu nga xamante ni loraangee kese jàngoro yi ñaa ca diwaanu Kédougou lu ëpp téeméer ak juróom-benn fukk ñu mu tëral joojee jàngoro euh, l'hôpital bi di bu Sayraya ëppale ca àndoon nañoo Ibrahima Jabaxate ci xayma gi ñeel jàngoro ji taxawaay ga ca waa kër docteur am màggalug Cheikhul Khadim gi état beeg na mu ci taxawee daanaka la ko ca war téeméer yoo jël juróom-ñeent fukk yaa lu tegal ñaar ministre intérieur ni waxee Antoine Félix Diome xam le ni it euh, la des daan ko gën a baral na jéego xam na ne it barkeelub njiitu réew président Sall bu weesoo état bi moom taxaw na ca wàllu ndox mi ay camion yi camion citerne yu ay junniy junniy litre gabon jamono yi euh, daal dina mel ni am na fa coppite gu rëy ndax ci wàllu kon kilifteef ay soldaar euh, taxaw nañ ni ŋànk nañu réew ma ba jëmmi jamono élection ya fa woon tëj frontière ya ci gàttal fuqati nguur gi ci Ali Bongo Barthélémy Ngom réew ma ci jaxasoo la nekk nii ay minutes yu néew gannaaw ba ñu siiwalee résultat élection présidentielle ba fa doon am ne jox nañu victoire kii di Ali Bongo ne am na 64 virgule 27 pour cent des suffrages ci la ay militaires bokk ci ñoom ay béret rouge ay gendarme ak i béret vert yu bokk ci garde présidentielle ba def ab déclaration ca télévision nationale ba ne jël nañu nguur ga ba noppi dakkal régime bu Ali ki liir communiqué bi nag ci béere noir ya la bokk ñoom ñooy soldaaru régiment blindé ya nous forces de défense et de sécurité réunis ñun force de défense et de sécurité ànd ci comité pour la transition ak i jëmmalaat lii di institution yi di CTRI ci turu askanu Gabon jël nañu dogal lii di aar kaaraange dëkk bi ngir saxal fi jàmm ci loolu ñu jël dogal jëlee fi nguur gi fi nekkoon ba tax na élection générale yu 26 août 2023 bi passé ak résultat yi nga xamante ne dañ koo luubal yëpp la ñu neenal lii di frontières yi tëj nañ leen lépp luy institution ci réew mi tas nañ ko. Jusqu'à nouvel ordre, toutes les institutions de la République sont dissoutes. ba fii nag frontière yu Gabon dañu leen tëj am na it comité transition bu fa militaire ya taxawal ndaxte militaire yi dañoo gis ne Gabon amatul jàmm ci jamono ji ñoom ñi def coup d'état googile nee ñu résultat yi tukkee ci élection présidentielle ba fa doon am ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août gi weesu dañu ko luubal du li jóge ca mbañ gàcce ya ba pare nag ñuy ñaawlu it ñoom militaire yi gouvernance bu Ali Bongo nga xamante ni def na fukki at ak ñeent ci bopp réew ma. jërëjëf euh, Barthélémy Ngom laata soldat sa yëglu ca moomeem réew fekkoon na booba kuréel gi yoroon wàññi geek euh, si wàllu résultat yi di centre gabonais des élections xamle woon ni alibongo Bongo euh, faluwaat na ci juróom benn fukk ak ñeent yu tegal ci téeméer yooyu jël Euh, daal di ca topp kii di Albert Ondo Oussa euh, mi principal rival am moom fanweer yu tegal ci téeméer yu jël lañ ko jox euh, ci wàllu taux de participation di ña génn ci askanu Gabon wote ji téeméer yu jël juróom fukk yaak juróom benn ci ñu bindu ñoo demoon sànni seeni xob ca mbañ gàccee waaye ni nu ko waxee xibaar yu mujj mooy soldat sa jamono yi niilal nañu lépp RFM juróom-ñetti waxtu tegal ñeenti minutes. penku Sénégal ca Kédougou ak jàngoro yi ci chikungunya ak na muy lawee ca gox ba donte kër docteur ña nga ca ngir askan weeg seen karange jàppale ni daal ba keroog fen neuf août nu euh, mën a xayma mooy téeméer ak juróom-benn fukk juróom-ñaar ñu mu tëral jàngoro ji euh, ca daanaka l'hôpital yi ca gox ba yëpp am nañ ca malade yi waaye euh, centre di district sanitaire bu Saraya ci ëppaleeg téeméer rek fukk ak juróom-benn yi cas Ibrahima Jabaxate. feebar chikungunya bi mu ngi génn di law ci biir région bu Kédougou fu mu nekk nii district sanitaire yi nekk ci biir région bu Kédougou yépp amee nañu feebar bi rawatina nag district sanitaire bu Saraya fi nga xam ne nemmi nañu li tolloo ci téeméer ak fukk juróom-benn cas de chikungunya docteur Ababacar mbay mooy directeur régional santé bu Kédougou. tey moom à Saraya il y a encore eu des cas au moins treize cas hier et vingt sept cas aujourd'hui ce qui ëppee doole fii ci Kédougou am nañ ñeent fukki cas ak ñett boo jëlee Salémata aussi toog nañ ay benn semaine gisuñu dara mais mi ngi commencé di feeñ am na benn cas bu mu am yaa cinq jours tey am na déjà juróom-benn cas ce qui veut dire que épidémie bi mi ngi jóg donc buñ ko jéemul arrêté rek mën naa mu law te arrêté bi mooy ki koy joxe ñu faagaagal ko maanaam mu jóge fi ni feebar bi di lawee tax na bu autorité administrative yi tambali benn campagne de riposte pour xeex feebar bi Georges Samba Faye mooy adjoint gouverneur chargé du développement. lancement officiel bi ànd ak waa brigade régionale de l'hygiène ak waa direction régionale de la santé pour ñun ñëpp ñu booloo ñu xool nu ñuy nu ñuy xeexee jàngoro bi nga xam ne judd na fi te bëgguñu daal mu mu law fi donc équipe yëpp taxaw nañ ñu ngi nii yéen a ngi leen di gis euh, dinañ dem ci bërëb yooyu noonu pompe fa def lépp lu ñu war a def ba musique bi nga xamante ne moom mooy joxe feebar bi du mën a reproduire te su reproduireul donc feebar bi dootu ko mën a joxe dina ñu yaatal opération saupoudrage yi ci ñetti département yi ëmb région bu Kédougou rawatina nag ci jura yi nga xam ne cas chikungunya yi ñu ngi génn di yokku Ibrahima Jabaxate Kédougou RFM. jërëjëf Ibrahima ñu waxtaanee tukki mi ci anam yi dëppwul ak yoon ak it euh, mbootaayu chef de village yi Sénégal yi fas yéene bay seen waar euh, ci tool yi ci wàllu kon xeex beeg moo même tukki nga xamante ne ay jéeya musiba tiis ak naqar rek lu fi dugal euh, ci lu ci baree baree bari moo waral ñu taxawal comité yu yëgloo ko fexe kargaaña ci seen. Euh, tukki yooyee ñuy def ci nëbbu euh, rawatina nag ci village yi nga xamante ni ñoo tofook waax yu Sénégal major euh, Mamadou Faye wala ngeen baal ma major Mamadou Faye ci français bi ngeen ànd ak moom ci association bi la bokk waaye bi yoon ci ci wolof dañuy ànd ak Mansour ji ak ab Abdou Diouf yi eh, war nañu waxtaan ak ay jeunes région bu nekk ñu jël ci ay jeunes toog waxtaan ak ñoom ñu am taxawaay boo nga xamante ni dañu koy taxaw ci yenn point de départ yi pour mën a gën a gàllankoor dem goo nga xam ne mi ngi dem ñu ngi dem te du dem goo nga xamante ni dëgg-dëgg lu tegu si yoon kon daal dëgg-dëgg ñu bàyyi xel ni daal lii. nekk na benn phénomène ba nga xam ci Sénégal yal na ko yàlla delloo ginnaaw ndax kat àdduna du dara lu dund fi ba yàlla soxla sa bakkan wa war koo jël jël ko waaye am amma teg ko ci loo nga xamante ni ëllëg suñu borom dina la ko laaj te doo xam looy lay bu boobaa dina nekk lu lu doy waar. looy wax waajur yi nga xam dañuy génne seen alal di jox seen doom ñu dem. loolu du ma ko rafetlu. bépp waajur boo nga xamante ni am nga sa njaboot. bëgg mu tukki da ngay jaar ci fa nga xamante ni moom la ñu war a jaar pour am papier yu légal yoo xamante ni da ngay dugg par waa normal du dem liggéey li liggéey yàlla may la ca wërsëg mais nag amaa dugg ci loo nga xamante ni amaana sa bakkan mun na ci des mun nga rëcc comme sa bakkan mun na ci des kon bu boobaa loolu dama ci euh, dëgg-dëgg sama mbokku parent yi daal nga xamante ni suñuy nattangaloñ di chef de village ak borom kër yi nañu moytu di yëkkati alal di ko dugal ci anam boo nga xamante ni baaxul ci njaboot yi. loolu dafay nekk lu doy waar luy yéeme. Mansour Kandji association nationale chef de village yu Sénégal ñoom fas yéene fexe ba wàllu tukki mi ci anam dëppoowul ak yoon d'émigration bu Rwanda euh, dañoo jàpp ni daal manche ali bi comme Rwanda dafa amoon jafe-jafe ci wàllum stade ngir mën leen recevoir Sénégal daal dina nga recevoir ko fii waaye match retour bi itam ñu jox ni euh, jàpp ni kon boo ko dañ amal foofu la ci Rwanda waaye daal euh, gannaaw loolee mu am li nga xamante daal moo ci daal di laxasu ba fédération sénégalaise bu football daal di bind ab bataaxal daal daal di xam ne ni euh, ñoom dootuñu demati ca Rwanda ndax fii la ñoo nar a recevoir ndax loolu la leen yoon may waaye nag gannaaw bañ ko defee itam beneen bataaxal bawoo ci fédération bu Rwanda bu football daal di tontu fédération sénégalaise bu football yëf yi tàmbalee indi ab jaxasoo waaye euh, démb ci ngoon la fédération sénégalaise bu football daal di génnewaat beneen bataaxal daal di xam ne léegi danañu dem foofu la ci Rwanda ngir kon bokk amal googu la A de vingt ans bi ñoom ñooy kon bokk amal déplacement bu foofu la ci Kigali ngir daal di représenté Sénégal ci éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations googule seen digg ak ñi nga xam ne du waa Rwanda match bi ñu koy amal ci euh, dëkk bi nga xamante ni euh, ñu ngi ko tuddee euh, ci stade bu Uye nekk foofu la ci Rwanda ka leen di jiit nag di équipe nationale Sénégal googule kii moo di Papa Thiaw ak kii di Malick Daf ñu dal di wax ci leneen moo di wala football ba tey ak Dakar di yëngu ci Ligue 1 ñoom nag dañoo daal di am ab équipementier bu bees moo di GS Sport kaka moom nag moo di Jamil fay ñoom nag euh, waa Dakar Sacré-Cœur ñu ngay xam ne lan moo tax euh, kon bokk ñu daal di euh, xaatim ab contrat seen diggante ak ki nga xamante ni moo di structure boobu te Jamil Faye daal di ko diriger Jamil fay doonoon ni jamono président bu Guédiawaye football club ñu daal di si déglu kenn ci waa Dakar Sacré-Cœur di Abdourahmane Mbengue. ñun suñu ambition moo doon liggéey équipement boo xam ni Sénégal da implanté. ndax nañu bëgg favoriser ñi fi nekk Sénégal di liggéey doomu Sénégal yi ji euh, sport dafa nekk équipementier boo xam ni lu ñu gëm ak ñu lu ñu gëm moo bokk choix bi loolu moo ko gën a tax euh, ñu ñu choisir ji sport partenariat bi euh, pour équipe yëpp la donc ma mag yi équipe bu góor yi ñu jigéen yi ak équipe bu ndaw yi tamit ñi ngi si boolee tamit ñuy ñëw si club bi di di di football xale yu fi ñëw di football donc si école de football bi ñoom tamit ay maillot gis wax nañu am partenariat bi si benn année la euh, wante ñun ñu si jublu mooy ñu continuer ko si euh, yeneen at tamit léegi si euh, mbirum jaayu mayo bi dëgg la ñu ngi gis de plus en plus que nit ñi ñi ngi favoriser mayo locaux yi ni ngay gisee ñuy sol mayo équipe étranger yi moom nañuy solee tamit mayo équipe Sénégal yi donc ñun ambition boobu tamit nañu am ak G Sport dinañ mën jënd mayo yi fii si Dakar sacré wante tamit Euh, G Sport am nañ magasin boo xam ni tamit di dinañ fa mën jaay suñu mayo euh, di ñu jéem a xool tamit nan nañu mënee jaay mayo nit ñoo xam ne tamit dëkkuñu Sénégal ñoo xam ni ñu ngi ñuy supporté nekk bi euh, bitim réew ñoo xam ne tamit dinañ mën par internet di commandé mayo yi tamit bon montant bi nag nu ñu ko dévoiler noonu parce que tamit comme ni ñu ko waxee sànq dafa am par mii moom nag euh, fi mu toll ni euh, dafa jaaxle la ko waral nag moo di euh, fileeg ñuy daal di door yi les compétitions di Jeux africains yi ca Ghana ñaari fan jàpp fukki fan ak ñetti ci weeru septembre boobu ba tey ñoom xamuñu daal nan la ñuy def ndax danañ damam déet loolu nag moo tax ki nga xam te ne moo leen daal di jiite di Cheikh Ndiaye di woote daal ñi nga xam te ne ñoom ñoo ŋànk mbir bi ñu daal di leen kon bokk jàppale ngir bu ko daal def ñu mën a dem représenter Sénégal ñu déglu ko national parabasket euh, mi ngi nekk regroupement depuis six jours pour préparer Jeux africains yi nga xamante ni mi ngi am du 2 au septembre septembre fële ca Accra mais ñi ngi nekk ci regroupement boo xamante ni avec difficulté yu méttee métti ak ay stress parce ministère bi nga xamante ni moom moo jël en charge équipe nationale au moment bi ñuy wax ni xamuñu ba xam jeudi dinañ quitter Dakar ou pas ci côté regroupement ci côté hébergement ci côté maillot billet d'avion dara dara dara ministère dafa gu ko euh, le premier ministre ñu koy interpréter pour mu xam ni directive yi nga xamante ni joxe woon na ko jusqu'à présent amul dara dara loo xamante ni respecté nañ ko ñu ngi interpeller aussi le président de la république pour mu xam ni équipe nationale para basket mi ngi fii di waaj dem jeu africain avec des difficultés ñu bàyyi leen seetaan leen ak ay problèmes yu méttee métti d'autant plus que sport collectif actuellement euh, Sénégal ba mu daj équipe nationale para moom moo am chance pour dem expliquer paralympique yi nga xamante ni mu ngi am euh, Paris mais d'abord il faut que mu mën a dem jogante ci Jeux africains yi pour mën a remporter trophée bi ko Sénégal il faut que autorité ministère des sports ñu respecté ñu jox ñu kër voilà mi ngi noonu kooku nag euh, moom moo jiite fédération sénégalaise euh, bu parabasket di waajal Jeux africains yi nga xam te dañ koy daal di amal ca Accra di capitale bu Ghana ñaari fan ci septembre bi lañ ko door waaye boobu léegi la ñu war a dem amaguñu benn information buy firndeel ni euh, bu paree seen regroupement dinañu wutali yoon googu ngir mën a lii di drapeau Sénégal a jasal. Ah, ils ont droit à l'information. Ah, euh, bien sûr bien <laughs> sûr réew moom ay mbirum taf yëngal ak yu ni mel. <laughs> moo ñu xaw a sonal. Ah, xam nga nekk regroupement di mm-hmm. waajal ba toll ba fii. xamoon ndax di dem ak du dem. loolu moom. Euh, baaxul ci moral amateurisme